bi ci lënt it nag sama gàtt xam-xam la mbokk mi dafay laaj mu ne ki nga xam ne dafay tukki par exemple mu jugee fu mel ni France mu ci vol bi nag daw ba ba mu yàgg mu xool montre mu gis ne heure biñ daan doog France jot na mu ne ndax dafay dagg wala deret laa hawla wala quwwata illa billah waaw kooku luñ koy tontu mooy woor yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni mu ko jàngalee tënkuwul ci heure waaye dafa tënk ci soowu jant soowu jant nag ku ci nekk fa jant bi soxee ci yow rek foofu ngay war a daggee waaye mënoo ne maa ngi maa ngi maa ngi Sénégal donte ne France laa commencé woor gi France jant bi soxna fa rek damay dagg fii déedéet loolu kenn du ko def kon donte sax heure bi nga naan dog France jot na waaye yow fi nga toll noonu jant bi soogul ci yow waroo dagg da nga war a bàyyi ba xamante ni jant bi sona nga soog a dagg te sax bu dee ci vol yi sax léegoo rek dinañ ciy def yoo xamante ni bu jant bi sooy ak fu mu a fekk rek avion bi dina xam xamle kon moo tax kooku boobaa du dagg lu ko war mooy na toog ba nga xamante ni. jant bi sono mu dafa ko dagg même sax su fekkoon tey contraire bi la maanaam tey da ngaa woor ma trois heures de temps jugee fi nga nekk dem ci beneen dëkk boo xamante ni tey da ngaa yegg rek fekk jant bi so su boobaa yow da ngay daal di dog da ngay di dog ndax su boobaa yow jant bi so na ci yow kon fay leer alhamdu wa shukru kooku loolu lañ koy tontu. beneen bi kii dafay laaj muy ndax lislaam lan la wax ci jigéen ñi nga xam ne dañuy faral di jénn souvent bu ñuy jénn deferu comme make-up ak yeneen yi taar yooyu daal waaw yooyu nag bu ci koo xamante ni célibataire la kooku lislaam da koy tere ndax dafay dugg ci xeyra mutawarrijaatin bi ziinatihinna loolu lislaam da ko doon tere jullitam ndax loolu mu ne melokaanu ku julit la di génn di jaayoog wane sa taar te tey fii ci société bi bari na jigéen ñoo xamante ni tey loolu dañ ci jaare jële ci kaa yoo xamante ni kenn du ko mën a nettali ndax tey danga solu parfum wu romb benn góor xelam nekk ci yow kon loolu moo tax lislaam di ko tere bu dee nag jigéen ji nga xam ne nag dafa nekk ci biir këram nag nekk ak jëkkëram kooku foofu loolu la waree mu def ko waaye bu génn nag kooku lislaam tere na ko rawatina koo xamante ni célibataire la walla alhamdu shukur beneen bi mooy mu ne ndax ñi nga xam ne dañoo nekk jullit ba pare di jaay ci weeru koor yi ndax jaay googu ñuy jaay ki nga xamante ni tey dafa ñàkk a woote ko su ñëwee ñi jaay ko ndax ñoom dañ ciy am bàkkaar wala déet déedéet duñ ci am bàkkaar ndax ñoom xam nga ñëpp mënuñoo woor andoor ndax am na ñoo xam ne sax nekkuñ ay julit te dañuy soxla ñam beneen bi it mooy ne même jullit ñi sax am na ci ñoo xam ne léegi ñu am ngantay woor kon ki nga xam ne dafa ñàkk woor bu ñëwee nga jaay ko yow miy jaay soo yoon nekku ci ko bàkkaaram moom la concerné wala taziru waasiratun wisra uxra alquran nee na kenn du jël bàkkaaru jàmbur di ko yenn nit mooy circonstance yu mel noonu nag moo taxoon muy wax kon kooku dara du ko ci topp beneen bi muy laajte ndax lu mel ni xeetu lido yi ñi xewal ci weeru koor bi di ko def ak fari foot mu ne ndax dagan na ma koy def ci weeru koor bi wala déet te yu baale na pari foot yu mel noonu waaw ma lay wax ne mbokk mi lépp loo xam ne yàlla da ko loolu tënkootul ci heure wala tënkootul ci weer buñ ne lido dafa xaraam xaraam na définitivement buñ ne pari dafa xaraam xaraam na définitivement amatul nag naan weeru koor wala weer wee araamu déedéet ba am xasee xaraam xaraam na rek nga def ko ci weeru koor ak lu dul weeru koor a ci am kon nañ xam ne loolu da dafa xaraam beneen bi muy ndax da da jigéen ji nga xam ne da daan faral di gis réglam chaque la cinq chaque la cinq da gis réglam léegi nag tey ñu ngi ci weeru koor bi dafa tombeeg le trois mu woor na le trois woor la mais la cinq war a ñëw mu ne ah suba duma woor ndax man à chaque fois sama règle la cinq la la may arrivé kooku loolu su fekkee nga xamante ni def na ko maanaam ñàkk naa woor ngir sukkandiku ci ne moom chaque le cinq la daan gis règle kooku l'islam da koy condamné dañ naan ko yow da nga fay bis boobu en plus da nga kafaara parce que dafa def lu ñuy tuddee tawilul banet waaw tawilul banet mooy lim def nii rek parce que loolu moom yoonam nekkut ci mbiru yàlla la kon da war a woor bu mu arrivé la a dagg waaye waroo rek sac la cinq la daan rek kon naa ñàkk a woor léegi loolu ku ko def ku nekk rek lislaam condamné la mooy da ngay fay bis boobu tey di nga kafaara woor ñaari weer wala nga lele mooy nga fex ba jël soixante personnes ku ci nekk nga leer la kon kooku lool moom mooy atem beneen bi muy laaj ndax jigéen ji nga xam ne dafa dem ba jant bi di waaja so ay weeru dix-huit mu am règle ndax bis boobu dana ko xas fay wala du ko fay parce que li tey jant bi soo bëriwul ah ko fay ndax jant bi soogul ala kulli te woor dañ ne mi ngi tàmbalee xarub fajar ba jant bi kon donte sax ay minutes moo des jant bi so su ci mbërëgoo day boobu ala kulli xaal dégg nga ko kon loolu mooy li xam ne moom la moom la ci foqaaw yi wax beneen bi ñu tëjee mooy ndax ki nga xam ne dafa feebar ci bëccëgu weeru koor te dem na ba médecin yi xool ne kii nii yarano yaramam attanatu koor gi dafa war a dagg wala wartu dagg wala sax su daggee bis boobu dana ko fay wala déet waaw su fekkee nga xam ne médecin yi xool nañ ko dem ba xam ne kii nii feebul na feebul goo xam ne bu continuer koor gi mën na ko jural yeneen gàllankoor su boobaa kooku dañ naan ko da ngay dagg daggal par force ndax kat sàmm sa bakkan da laa war waaw woor nim la waree sàmm sa bakkan noonu la waxee kon su boobaa kooku dafay dagg après nag bis boobu ndax dana ko fay wala du ko fay ah kay dana ko fay ndax su fekkee kooru farata la nga daggoon ci ndax ngànta su koor gi jeexee ba nga tane ba ngànt ba dàq da ngay fay bis boobu fay laay xam doo kon loolu mooy yi fi ci ay question lu ci leer rek ñu xam ne yàlla la seen mbokk imam Mouhamed Bachir Darame asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu